ci diggante rëg-rëg ak boy ndooy ñoom ñaar ñi ngi léewtoo ah tel nañoo songolte déggal ci diggante rëg-rëg ak boy ndooy ñoom ñaar ñi ngi roko sante ndeysaan combat bi dina gaaw ci diggante rëg-rëg ak boy ndooy comme jël am na ci diggante rëg-rëg ak boy ndooy daan na ko ñaari yoon laa ilaha illallah laa ilaha illallah ci diggante boy ndooy ak rëg ñaari jël la ko ñaari jël la ko daan ci diggante ci diggante Reug Reug ak Boy Ndoye daan na ko ñaari yoon laa ilaha illallah laa ci diggante Reug Reug ak Boy Ndoye daan na ko ñaari yoon laa ilaha illallah Soumane Deko ak Diène Dème Diène Dème Soumane Deko ak Diène Dème ñoo ñoo nekk noonu di lewtoo ci digg géew bi arbitre bi joxe na coup d'envoi bi mu nekk lamb ju am solo tey ci takkusaanu ngoon ñu jël drapeau bi tudd ko ki nga xam ne le président Inaakowa mooy Dame Diagne moom lañ tuddee drapeau bi Ousmane Diécko ak Diène Dème ñoom ñooy bëre ah gis nga ndeysaan waaw euh, ñoom ñaar ñi Ousmane Diécko ak Diène Dème attention ndeysaan Ousmane Diécko ak Diène Dème ah léegi làmb ji jeex attention dakk na ko daan na ko ah ilaha illallah waaye ku xam lii moom arbitre bi dina mu takk ko daan